waaw commandant ñi ngi ñi ngi fii ci Taïsir euh, c'est quelque quatorze kilomètres de de Darou mais oto bu renversé wu ñoom dañu yóbbu woon il paraît néew ba yaakaar naa di wàññeeku du dañ doon wàññeeku dañu yóbbu woon néew bay wàññeeku fi mu ne dañoo yóbbu néew ñu ngi dëkk ngumba ngéwul yóbbu néew bay wàññeeku fi mu ne koor yi ñu ngi tëdd nii man li ma jaaxal mooy 14 kilomètres de Darou la mais ñi ngi woonaa commandant bu Louga euh, wax ak moom mu jox ma beneen numéro ma woo leen ñu ni ñoom eh, waa daaru ñu war a déplacé wu te moom woon a waa daaru ba noppi man dama xamul 14 kilomètres ñu woo leen eh, lenteur boobu jaaxal na ma lool donc eh, li ma ta réglé bari na lool démb on parle de plus de 40 morts tey ñu ngi waxaat ay nit yoo xamee ne ay blessé oto bi renversé wu mënoo gis sapeur ñu ñëw lii c'est catastrophe dëgg la muy réew moo xamee ni vraiment yémen